Nous avons au début sur un plan pour xam un espace public dédié pour avons un équipement. mais à notre grande surprise un jour un monsieur nommé Ousmane Diaye a commencé à euh, construire sur euh, le public. public et nous on voulait en faire un espace vert. Descos nous avons fa envoyé un agents agent sur le terrain Nous avons jël ay photo nous ne amuñu bind malgré descente de Descos waa ji arrêté wul lu ñu comprendre wul mooy depuis ñu ngi def ay démarches que ça soit comme nous ko waxé en français Jean-Marie gendarmerie Sangalkam Il y a un manque de volonté d'intervention. cest à dire ñom dañu tok melne ne ku ñuy sétane bo ba légui mer Ndiagne Diop ñëw na fi arrêté mu arrêté mu wax leen ñu arrêté arrêté wuñu à notre grande surprise cest à dire ñu yeewu ak mbettel waa après magal muy continuer chantier bi ngeen fu mu toll ni mu ngeen ko filmer légui nak fu ñu toll nii ñun sës nañ léegi ñun dañ ne ko woon bu fekkee autorité benn autorité locale mënul arrêté chantier bi ñun par force dinañ arrêté chantier bi e dinañ détruire au delà de au delà de arrêt d'escos lépp lu fi waa ji def xas xam nañ bi ñuy def arrêt d'escos fan la waa ji non seulement dinañ arrêté mais dinañ détruire li mu fi def au delà de arrêt d'escos bi ñu fi defoon affaire bi mu ngi ci yoon tamit dugal nañu plainte bu amul benn autorité locale bu mënul arrêté ñun dinañ faire arrêté par la force parce que foofu rek la ñu mën a la ñu mën a mujjee ak waa ji quoi.